ci sept ci suba ba léegi jigéen góor mag ndaw ñoom ñëpp ñoo génn ci yoon bi ngir teextu ki nga xamante ni moo di amalu Ba fii ci Kanel nekk ci Matam dara yombu fii campagne bi nag nu mu baree mu loolu deful dara ci dundinu Alpha Ba mu nekkoon ci université bu Ndakaaru di dund lu métti métti mu ñëwaat fii ngir di liggéey ci ay moto ngir mën am dundin bu yees lan moo la dugal si métier bi si sutur bi ah ma am ci def li ma lekk rek wax dëgg yàlla waaye tabaxuma defuma dara waaye li ma lekk nag wax dëgg ma ngi ci am nag. juróomi at ngi nii nag moom mu nekk fii jóge Tambacounda 245 kilomètres. foofook fii moom mu ci yore njabootam di ci bay waaram tey ci koor bi dafa métti instant bi boo liggéey benn mor bi sax mun nañ mun nañ la jox 2000 francs lu tuuti tuuti ci mbaar mi rek lay nekk bés bu nekk loolu nekk liggéey boo xamante ne mu ngi ciy gis boppam te amatul yaakaar ci benn politicien. kii local bi bu ñu ñëwee fii gars yi dañu leen teer fii def leen lu ne waaye wax dëgg yàlla man daal sama wàllu bopp laay wax li ma gis daal gis ma fi daal daal. di après ñu ñu dem. waaw waaw ñu dem daal. Kanel di dund ak ay jaf Kanel di dund ak ay jafe ma alfabaak Ba ak yeneen i moroomam ñoom ñu ngi def lu ñu mën ngir liggéey mën a am lu ñu dundee fii nag lu bëri daanaka war nañ ko yeesal surtout yoon yi bu ko defee kaneel mën fa jaare dem di naat mel ni camion bu jël départ